nan fes nes mente de mitineri mam ya, waaw waaw ci àllar bay tak naaw di maa ngi siyaar di safoo di ndamoo di tiitaroo mi leenoo tocc mi koo sangoo sangoo xëboo solo moo muuroo cuuraayoo pikiroo sunu maam di cuujoo ko loxum muy kullu murit saadix ak bépp jaamu yàlla ñu ngi leen di siyaar siyaar bu sar sarare nag waaw ñu yaatal ko ci biir sariyaa bi waaye ci biir sariya bi ñu sar ci mu yaa ba pare na ñu sarale ñàkkale ba dëtt nag ci akadullahi muy bëgg ak gëm ak jëf nangoo gëm ki leen ko defal da ngeen war di sant muy Cheikh Ahmadou Bamba borom jaam ñi ku nangu ak ku nangul ku gëm ku gëmul ku yëg ku yëgul ku xam ku xamut ku mu neex ak ku mu naqari sëñ Bamba mooy sa borom ndax ki nga nangu ni mooy sa borom moom mooy sunu borom muy yàlla mi nu ni mooy borom moo ñëw ci Ahmadou di moom ku mu neex ak ku mu takk jóg fas yéene liggéeyal maam Bamba ak maam Seera Faal jariñ jaam ñi tekki tekk boo gis am na lu ko waral na muy ñoxale te bañ a xaare te bañ a nege waaw ndax ndaysaan man naan ko àjjana faal faal takk jóg ndaysaan mi ngi naan doom fa yàlla dina teew waaye nag doom doom doom teew na doom doom doom teew na doom doom doom na doom yàlla rek yàlla képp yàlla kese yàlla dong mooy maam point ñun loolu yàlla ñooruñu loolu yàlla safuñu ma sax safuma ma safuma suunu senegal Sénégal safuma tali Sénégal yi ma loolu safuma xam nga ko ma saf ki moom Sénégal muy Cheikh Ahmadou Bamba ki moom àdduna muy Cheikh Ahmadou Bamba kii borom jaam ni muy Cheikh Ahmadou Bamba kii borom suuf asamaan ak garab ak rab ak ñëpp ku loxum muy Cheikh Ahmadou Bamba yàlla mi ñëw ci moom di moom kenn du ko dindi ku weddi laajal borom dindi ñuy wax xamuñu. mënuñoo wax Bamba moom seeni ndey ak seeni baay géerug dund fii ba keroog àdduna tukki bu leen ñu fontoo nan leen wax bu ñu fontoo na rang na rang yi fontoo nan leen wax na njëkk tey na mujj tey fi mu ne nii ku fii génn ñu taal ku génn waxati ñu jaxase la fa yàllaaxu maa ko wax man bëgg dañuy kenn yéen pour yéen da ngeen a ni ñun ay kii nan ay fookaay ak yooyu ku tëb wax ku tëb wax daf loola neex ah ku tëb wax loola ay Touba yooyu mënoo leen a nangu ni Touba mooy dirigé àdduna bi mënoo leen a nangu ni ku demul Touba doo gañ a Sénégal da ngeen a war a nangul seen Ahmadou Bamba bu leen ma fontoo laa leen wax bu leen ma fontoo ku loxom kuy genn di wax eh ñun loolu yàlla ñoruñu loolu yàlla ñoruñu ku dul yàlla ñoruñu ku dul yàlla safuñu sëñ Bamba yàlla la. yalla na ni yek ci moom yàllaa mom ci mom di mom mom mom ku la xom mom la ni dund suufu senegal sax ñu ko président senegal yow ñu la ñu politiciens yi dunduñu leen wu len bay wax ñu naan ay xoma directeur ay Dakar dem ci ko ma fonto de wa ngay ngandi tun di jaay ki do lam sa gen mom ron nga jégalu way yow xolal bay wax nga naan ay mère sama jabar mourid la boo ma maytu day eh nga xam ne du ma ko kafe kafe Touba laay laal Ila Touba borom Touba moko ko Ila Touba don ko wax ngir auto ru taxul ñuy wax Ila Touba tak naaw la nan fes Amadou moy wote wote wootee kulluhum daw wuy ji katale gi dañuy dem ak tijaani ba canaba ba yek ñaseen yek layene ñep ku demut ngir serigne bi sax ni nga dem ngir commerce ngir amu dem ni ñuy senegal ni li ñuy jariñ Sénégal amut Bamba la sëriñ Bamba moom moom dunya moom see ngi nday see ngi bàyyi moom see ngi tarixa moom seen lépp ku mu neex ku mu naqari lem leen see ngi genn ba mu ron bu leen ñu fontoo nañ leen wax gan yi kii bi waay yow bu leen ñu fontoo nañ leen wax ku yëngu ñu taal la ku ŋaan ñu dee bu leen ma yëngal wóor waaye yow ma ñu na may mais <laughs> faal mangi dem mangi dik da dem dik, dina dik Dakar dina dik Dakar bu ma ñewé xolal <laughs> dina la bolé ño xamné ni wa Dakar ño lay Dakar yow la la wax ni yow Dakar dem dik, gaay gi tontu mo mala la damay cuut maa ngi gànnaaw naan dañoo jox ndigal ni ya ñeen bu ñu leen may bëss bëss bu jot ñu bëss mu dugg da day dugg nak di dugg seen xolé di leen ko cuut hmm? waay ويوم ما يبخ نعم صنع لك ها ترى نعم دور مريد يا مريد صحنا لام مريد عي صحنا نعم عي عي فعلا فيا الله هنا نعم دور مريد و كوفي جنة وحنا تعلى فما كنت زهرة قديم كم ما دام أنا بكمي يقول نعم كم كم كتايم جمال كذا نتوني تكذا جنفني تصبر عليك إيه كني إيه كني أدينا فارجينا في اللام كي دلنا جاما كي ما نأمر كن كم تي نخل نخل وما تي كن تدرن دملنا درجة إمام سيد إبراهيم فلان وحني لام أبو رجال الله درجة فال فال فال فال فال فال فال هاي مي وح من عندي كن اللي بيلي كن وح مي وح ما دم نعم بعد أنا فارا وح ده دم فيا لا مي وح كلهم darajay maam Sidi Ibrahima Fall lamp aboori jaalullaahi darajay maam aboori jaalullaahi barkeb maam Cheikh Ibra ñii li leen cuut du ay wax lii li koy réglé du ay wax ay seringue la silencien dinañ koy cuut ñu yooxu permanence lii dinañ koy cuut dinañ koy cuut ñu yooxu ne di dee lii laay Fall di ngeen xam ne ah, yow si sa na nga yem yow si sa man maay wax ak yow doom fa yàlla du ma sa yow moom Moussa Diop du ma seen morom dégg ngeen li ma leen wax man ni nga xam ne nii damaa dund ay président damaa faala ay garab damaa faala ay kii mooy ministre kii mooy lan dund ma leen dund ma leen gëmu ma leen yëgu ma leen ñun faalewul leen ñun suñu bàmba leenu gëm ñun dañ leen a faale yéen ki moom seeni ndaay ak baay yéen da ngeen a xam dara da ngeen am dara da ngeen a mën dara ki am ki man ki xam ñun kooku la na àndal ci moom na nay tàkk ndax moo ñuy xam nag ñuy sar sarale amudu oh, ko ko laal laal laalaakee du yaa ak ñun de waaye yaa ak moom ndax moom la moom. xale ñu naan kafe Touba Ila Touba Ila Touba buñ wax borom Touba tax ñu dem Touba mais ba autoroute autoroute bu ma de. waaye yow fii gis ngeen dara jay maam Cheikh Ibrahima Fall li may tàkkaloo billaahi wallaahi taala barke maam Sidi Ibrahima Fall sama sama baaraam bu ndaw bi coppet bu gën a tuuti poussière bi moo ko ëffee xajul ci. Eh, bul ma yëngal de bul ma yëngal nag boo gisee ma ne gaay nanu dal boo gisee ma ne gaay nanu dal boo gisee gaay ma ne nanu dal waa ahlu takk jóg takk nañ jóg bu yàgg léegi ku naan bala ngay jégalu ñu cuuj la ñetti sereengal damm ko ci biir muy daaw ci sa may wax ak yéen nag dañoo bëgg ngeen lem ba mu roo xàmmee ràññee waxuma la dee dee ab xaritu xaritu Baay Faal rek ab xaritu Baay Faal boo xam ne xamul sax mosut a tudd yàlla mosut a wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah mosut a wax lenn lu moroom kuy jéem a ñëw di am benn jalousie wala genn xolu kiñaan wala fii kii déggoo mën leen Ahmadu ba muy daan see ngi ndey see ngi bàyyi juddoonu Adama ak Awa amuñu suuf amut asamaan amut ba ngay génn di xol di wax dinañ leen ko cuuj permanent permanente waaw waaw barke mu am Cheikh Ibrahima Fall Lamp billahi wallahi talahi wax ñuy kii di kii njàmbar bu kenn wax ak ko kenn tontu maa ngi fi kii dinaa cuuc di cuuc ba xotti yi dootul toog dinaa cuuc cuuc ba xotti yi dootul toog jàpp cuuc bi cuuc ko ba dootul cuuc <laughs> bisimilah jàmm sarsara la adoom doon teew na de loolu yàlla waxu ko kon lu yàlla dund la dégguma leen dépassé leen ñii di wax ay autoroute ak ay carte ak ay ko gane fii ak fële faalewul leen ñun Ahmadou moo gane bu leen ñu fontoon na la wax si solo maytuñu yow keneen a keneen yow muy wax ak jóoba keneen ku war a wax te waxagut ak ñuy waaju jug ku ci jug takk jug jug na ba pare dañuy cuut seen maam yi nga xam ne duñ ci lenn benn maam na muy maam Seydi Ibrahima Fall lampoñ maa leen ko wax maa ko wax waaw man maa ngi dugg Sénégal deux fois trois fois par ah, man dunduma leen man dajey maam Sara Fall maam maam Adjana Fall doom fa yàlla ma neexi léegi ma gis ngeen eh, Macky na nga réglé affaire mu jaar yoon dajey maam Sidi Ibrahima Fall tey dama dugg Sénégal ci guddi baatin ma nag baatin ma kii di génn di di jéem a xamatu xamatu lu naan ay gis nga xolam ay mun a ma wala keeg yooyu waaye yow fii yoonu murit la kenn warut a tudd sax di tudd keneen yoonu murit la war a tudd du tudd ndax moo ñu muuru maanaam sutura maam yàlla Ahmadu moo ñu ko defal murit yi ñu làqatoon de dañoo muree ko ni fang daj moo leen di rey nag. seen seen autoroute boobu dindi leen ko fi tuddul Ila Touba Ila Touba mooy dem takk jóg dem Touba bu ñu fontoo 105 talibé dañuy dem ndax yàgg na noo dem ba seengi tuwaay yow eh kii moom moom seengi ndey moom seengi bàyyi ngay ngante làmme ne sa yow ma fontoo de fii xoolal kenn du sant rek far fos mu neex leen mu naqari li ngeen di bañ dëgg sëñ Tuubaa moo leen moom moom seen ndey moom seen baay moom senegal dee leen Sëriñ Bamba moom seengi ndey ak seengi bàyyi ak Sénégal far fos moom ngeen di far fos far laa fos loolu moo am mooy li ne bu nekkul woon yàlla du def nii ñu nekk fi di nekk loolu di leen ko wax muy nekk ci seen i nopp ak seen i xol ak seen i ruuxu Ahmadu Bamba barke Maam Saaru Fall barke maam Saara Ba laa leen wax ne na yëngu na am ko yëngu na kenn yëngu nga yëngu eh kii jégalu bu mu jégalu doyul mais mu naan ay mais doyul dee Ahmadu la nu wax ñun ku wax ñu eh. bagaasi mat na léegi ay justice ak yëpp cànc na léegi lépp mi ngi ci loxo. loxo yëllaaxu yëllaaxu nan leen wax tekk tekk lan wax. waaye yow Faal kafe gi na génn waaye du ma ko leen wax amul baaloog yooyu génnal wax ku génn wax ñu sifaay la wa réew boo ko bëggee ray nga ñëw fi ne ni beneen réew bu ñëwoon song Sénégal ak i ak i bombam foo jaar nag Sénégal jóg nag dóori bomb bu leen ñu fontoo nañ leen wax bu leen ñu fontoo seen mbirum taana seen mbirum dëmm yi na ko génne ci seen xeleeg seen xol yi seen kaddu yi seen kaddu yi bëgg ngeen génn ci ay Touba ak ay Ila Touba Ila Touba ngir Ahmadou la bu leen ñu fontoo te yéen dafoo leen fi tus xéwali xéwalu Sénégal la xéwali nag Serigne Touba ñu ko defal tale bi Serigne Touba ko fi def suuf si asamaan garab moo ko fi def ba pare moom leen daf leen fi kon loo leen di def nay leer may wax ngeen ay نيرك بخورك أنا اللي ملاني خمرت خلاص أبو بوسي إنك زرا بخطي من ده ملاني اسم لك ملاني اسم لك من ناكم أكوني كوني بطل دوما لينغام دوما أورانس بان ماي دوما بانانا بان ماي خولي كوتي نوي بان ماي بانانا نغي ماي خولي كان يا خم ولين ما فونتو لا لين yéen ñiy ñëw de wax na su dul noonu ci yoonu murit yéen laay waxal da ngeen ne murit nan murit yi ci laa bokk eh tey rek ma eh. waaye saa saa saa ku coow li jar maam njariñ daal ñu waay parce que maam suuru ngay wax yoo xam nga ci li nga dugg yow yoo xam nga ne maam dafa ay malaaka yoo xamante ni maam moom moom ñëpp nag moom lépp. Amadou mooy boppam mooy dafal boppam mooy dindil boppam ndax moo ñu moomal boppam nekk fii nag du ñu dundal boppam. ñu koy kenal, mu nekkal di kenal boppam mu yàlla mi ni kenal di dund yéen dund yaa ngeen wax ñun liggéey jaamu yàlla wax dund yàlla kenal yàlla ngeen wax ay àdduna ay gañ ak ay autoroute da leen a faale yéen yéen ay ngand leen fi Bamba Bamba Bamba boobu da ngeen a waay yow da ngeen a man génnal rek génnal doomu tey moom barke maam Cheikh Ibra wax ñu naan dañuy xëy di ana a foog boo leen génnee yéen seet gis ngeen xool yéen yéen saay sama làmmiñ la day bëgg di wax ay yooyoog noonoog li leen koy cuut day wax ngeen naan da ngeen a garaaw day soob booy baalu da ngay dangay da ngay simple da ngay wax waaye yow kii kii kii kii kii bu loo nag bisimilah jàmm waaye kii day yow nag laay waxal bu may waxaat waxuma kenn de yéen ñi seen xolli bon yéen ñi nangulul Ahmadu yéen ñi nar a dee yéen waa safara yéen laay waxal te ngeen a dimbali seen bopp. li ngeen li ngeen xam doy na di li ngeen li ngeen xam doy na. dimbali leen ñu amuñu seen jot taluñu leen mais gis nga kuy jug di wax naka sudu noonu di jéem a gis nga xajamaar yi ak raxaar yi ñu <laughs> hmm. ñun bu ñu taxawee du ñun ñoo xam barkeb man Seydi Ibrahim Fall maytu bi du man de mais ki ci man la ak ci man ci ki ma nekk te mu man ko nanu tey nanu tey delo xale roy bu may yëngal da jey man Seyra Fall bu may yëngal ba xam ne nay wax billahi wallahi taalaahi barkeb ahmadu Borom Njaan ñi laa leen wax de jey man Seydi Ibrahim Fall lamp mam sour Fall sunay <laughs> jam bu leen yëngu bu len bu len yëngu Fall wax na ne kenn rek jug day na léegi yéen ñëpp wax ngeen ba pare toog leen ba fii ba Abdul Benj toog leen faal kenn dootul ngarale xam naa leen dama leen a yàgg a tudd nga tur ni dunduma leen talaatal leen ndax xam naa ne yéen taanese yi di ngeen dem ba ñu ñu gane leen ngeen bañ nangu di commencé di jaay affaire nooxoor yooyu comprendre nga léegi li ma mu neex leen mu naqari leen fii taaliba Cheikh Ahmadou Bamba moo fi toog far force far la force far force far la force amul ay ñaan amul dugg xalwa di wax far force far la force doolay maam Cheikh Ibrahima Fall ñi xamul xàmmee neex doolay mbaam far force far la force doolay maam Seydi ibrahim Fall far force far la force far force far la force murit moo fiy toog taalibe ab taalibe fi toog waaw ndax jarul sax manaan murit ndax ñëpp yi murit nañu ku mu neex ku mu naqari foofu la leen ahmadu moomee bu loolu weesoo nag taalibe nan wax ndax nit ki mën ngaa doon murit sax te doo amuk taalibe mën ngay wuyoo sa bopp murit te doo am taalibe mën ngay woowee sa bopp Baay Faal te doo amuk taalibe kon ab taalibe taalibe Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ko tedd ki mooy kii doxal Sénégal te ku fi tok far force mom lay demee te mom lay doon far force far la force kumu neex kumu nakari ku am problème ay teuri xaak ay murit yeeg ya fay dee ndax far force ki fi tok mourid lay doon far force bu ko doonul bala muy tok la koy doon te bu ko dooneet bu ko doonul bu ñëwee ñu def ko ko mu doon ko far force far la force. far force far la force fi ku fi ñew da nan la de man am ak mourid yi jamm neexul ak ñom demal ca ñom bo fi amul ak ñom jamm do fi am jamm ko amul ak ñun jamm do fi am jamm ndax borom jamm ji nan andal muy <coughs> borom jamm Salam Rahman rahim karim espèce de nit ku hmm? espèce de nit ku may wax ñu ay maatama di wax yu dekk espèce de nit yu rer di di sarsarale ci politique di bëgg wax ennii ay ethnique ay yenen yenen Sénégal lam ba mu ron dara lu tak ba lu tak dara lu xew dara jey mam suuru fal fal lolu ñu كل يوم بنيو سيغاي باتين ما فرانكل يعني في من لم بامورون اي واخ اي كي نان كي موريت نان اي نان اي موريت كي دوك بام ما ينيب اي واخ واي يو مي ني ني اي مو يانغال كان منظور فال تكناو لا دي بسم الله كمان شهر bismillah barke maam Serap Fall barke maam Serap Fall barke maam Serap Fall takk jóg parce que nee kennal sama maam ci café Touba gi Ahmadou la am moom ñëpp nag waaye yow <coughs> danuy danuy seng morom ba ngeen naan da ngeen di ñëw Touba di ñu jéem a jënd waaye yow yéen xoolal yéen xeetu xeetu parole nasaraan yu bon yëpp may ñëwal xam nasaraan moom baaxul ay yooyoog yu bonam yooyu rek la sama xel mi ci yooyu rek la ne ma leen koy cuuj waaye nag du ma wax lu bon ndax bëgguma def lu bon bëgguma wax lu bon ndax ci li ma nekk daa bonut li ma nekk daa gën muy liggéeyal maam Bamba maam Serap Fall maam yàlla point muy kennal maam Bamba ak maam Serap Fall yàlla sunu borom point mi ñëw ci moom ne moom romb ñëpp ñëw ci ñoom di fa moom. léegi ñu fontoo ngeen naan ay murit danoo kii ñoo moom fépp lu nu neex muti di ay eh, naan cadde cadde bu ñu kenn fonto ñu naan da ngeen fokk yéen moom aduna bi ñoom aduna bi kay bu leen ñu fonto bo mere nga de ñoom moom e yëngal ñu ñu yëngal ñëpp jot na ndigo ndigalu euh, yëngal ci yoonu mourid de indépendance défilé wu sant Serigne Touba na góor yalla yëpp gën ñuy sant di yuux na Ahmadou moom moom aduna bi moom seengi nday ak seengi bàyyi dañ ko ci teg force kon nango kon nango ay ñuy wax ay waa ji daa dof waa ji daa dee wala sa waay lu muy wax de darajay maam Cheikh Ibrahima Fall du teggi nag waaye nag naa ko wax yow kii yéen ñaar ñooñu noonu yow Cissé Lo ak euh, yow moom noonu kii moo jóg xoolal Fall caabi jaa ngi nii yéen moom matale naa leen ba pare ràcc yéen tëj naa leen dama koy wax ñépp dégg ko waaw kooku tëj bi avant ngeen ay jégalu la nan leen tëj tëj naa leen bu baax. yéen mom, fal bu len yengal fal tabe yaangi ni aljana dafa ami bunt yalla je dafa yori bunt baabul muridina de golen ko yoonu murid dafa am bunt fep da am buntu ñun nak tabe nañu yor fa yallaahu non yallaahu pa aljana fal bay fal tak juk ki kii ñoqali bëtt gulu tanal dom fa yalla fa yalla de fa yalla ata yi naaw yaa ngi ko tor yëpp na ni dajje dajje len ko bala may ñëw sene eh, ay dajje nagaaw ay wax waaye ñu àdduna ay autoroute ak ay aduna waaye yow ñun bul woon ak Touba dem nan bu yàgg bul woon ak Touba dem nan bu yàgg bul woon ak Touba dem nan bu yàgg ilaa Touba ji boo ko déggee nag ilaa la dañuy wax di ñu waaye yow ngeen a foog yow loolu dafa ngand ci ñun waaye bu ma fontoo de waaye yow ki wax bismillah barke man Cheikh Ibra bismillah barke man Cheikh Ibra sunna barke waa peer dañ leen a ñu peer amul une forme dañ leen a ñu peer ñu peer hmm? xar rek a des nag xar xar moom ber bu xar rek ragax ñàkk fu la mel ne seku lu ñor ngeen wax lu ñoru ngeen wax mais yéen lan la bu leen ñu fontoo ah bu ñu fontoo ku yëngooti waxuma lay xuloo de ay tontu ay internet de bâtiment laa leen wax ñun bokk ñoo ñu naan ay doo mus nguur ak ñun waxuñu nguur yàllaahu ñu respecté yoonu murit respecté muriti respecté kullu jaam bu leen ñu fontoo bu leen ñu fontoo nan leen wax barke rasulullahi barke ahmadu eh, borom jaam ñi danoo bëgg ngeen lem ba mu kaare kaare bi kat bu ne ngeen dagg ko mu def demeroo mu ne tëdd bay fa bu ngeen ba mu you know leen man oh ñàkk dund gi ma ne dund mu dugg ah su sama jëmm jii day bisimilah jàmm jàmm jëm jëm ca moom ca yàllaahu Ibrahima ku loolu maam Ibrahima dunduma la ndax bi yonent bi ñëwee dañ ne ko maam Ibrahima ngoog maam Ibrahima moomu nag ndeysaan moom la ñu tuddee maam Cheikh Ibra am na ñu naan mooy maam Cheikh Rafal déedéet maam Cheikh Rafal kenn du moom ku dul Ahmadu ak yàlla dañ di kenn nag moo waral ñetti kenn yooyu may doxee maanaam Ibrahima xalilullaahi moom bi mu teewee maam Cheikh Ibrahima yallaahu nan ko tuddee. waaw <laughs>